mën a buur loolooy dëgg na <laughs> nee na Aïcha loolu rek kay dëgg ñu gis sax Ousmane naan ah. <laughs> en fait en fait xam nga esprit Yewwi moo doon famille léegi su ngeen xamoon ni ñu déggoo Habib si wax na ko keroog seen benn émission hmm. ni ñu déggoo ni ñuy waxtaane dëgg donga lal suñu doxin ak yéen yaakaar bu mag c'est-à-dire ñun askan wee ñu tax jóg daañu amam du ñu am yàllaa xam. mais lépp lu mu ñu jaral pour ñu am daañ ko def ak askan parce que c'est un esprit c'est un état d'esprit c'est un projet yéene la yaakaar la ngir réew mi moo tax lépp lu lépp lu ñu sumba mu jaral ñu ko rek daañ ci def. mais ba tay waxagoo ma naka ngeen di xeexee. su ma la ko waxee dootul am njëriñ bàyyi rek ba nga gis. justement ñu. non su ma la ko waxee jëriñ njëriñ réhabilité leen dans vos droits. parce que jusqu'à preuve du contraire euh, les lois sont encore là même si on juge que c'est politique les lois sont là. oui oui mais moi, ta, comme que ñun lañ ko defee politique la bàyyi ñu avons ñu fait politique rek dindi ko. te nous wax nu ngeen di def. déedéet bon dootul la njëriñ de. <laughs> d'accord Tu ci ci parrainage bi euh, bëggoon naa tamit ñu ñu ñu wax ci parce que euh, euh, parrainage dafa indi coow bu bëri ci ci ci Sénégal parti politique yu opposition Nous dit hier, askan wi mu di gëm sa bopp mu di wàllu Sénégal ñoom ñëpp dàq lii di lii di parrainage ñu bëri jàpp ne que c'est anti euh, peut-être euh, euh, lan pour nous dire est-ce que vous êtes prêt, même vous pour que nous maintenir ce parrainage la concertation sur Amoul, vous serez d'accord est-ce Askan lui pour une élection avec ce filtre qu'est le parrainage. tout d'un coup le filtre là xam nga ni nga daaneel rek nga filtre là parce que li am parrainage ken le principe bi. Mm. principe parrainage ken bañul parce que xam nga sais réew mu ni Sénégal Ça yu ñu def élection état bi c'est-à-dire c'est la puissance publique mooy assurer lépp. comme que mooy jël frais d'impression mooy jël lépp mooy def flip. Amna no noo xam ne su ko defee tout moytul dootul am kàttan ak man-man pour de yor loolu def ko boobooy bi jiitu ñaareel bi ñu yaakaar ni su xeex jotee ku am nga droit mais war nañ ko defee no xam ne au moins ñi nga xam ne dañ ci dugg pour yeneen i xam ne bëgguma tudd turu kuy kafa kuy caaxaan ak xamoon ni ñuy traduire fantaisiste uh-huh. candidature fandi yooyu la ñuy éviter réew mel ni France uh-huh. dafa day am na pare parrainage am na ko élection présidentielle de femmes. donc kenn mënu bañ parrainage parce que su li nga tuddee filtre ñaar la caution bi xam nga filtre le déjà à uh-huh. parrainage li nit ñi ragalé, lu ñu contre parrainage depuis bi quoi tout défi Sénégal ba c'est-à-dire mécanisme bi nga xam ne moom la ñuy defee contrôle yi dalul xel jaaduwul ce fait ku ñëw def la war def matna na uh-huh. nga xam nan nañ la liquider nous le bloqué, il un problème. Mais c'est fait sauf en 2019, c'est le premier ministre Boun Abdallah John. Moi, je 5 cinq listes là Comme par magie. Il n'y a pas Vous avez 26, 22, je ne sais pas si listes, 26. 26 candidatures. Nous sommes ben, nous on liquide au début, moi, Karim, parce que nous, nous on avait satisfait au au parrainage. Uh-huh. mais ñi ci des ñe parrainage bi leen tonne uh-huh. te je suis sûr que ñu ci bari def nañ la ñu pour am parrainage ñun ñu disons pour des raisons juridiques ou autres li doon problème mooy expliquer su may su liquider Massamba ou Mademba nañ ko wan nun nan lañ ko liquider lan mooy raison parce que li système bi bon mooy xamoo ñoom nan lañ ko soo nañ lañ ko sumbe nañ lañ ko sóore ak nañ lañ koy yàkke yàkk bi donc nga ci am bokkoo mataloo am ngay dubloo dam na waxtaan keroog ak gàkk mu ne ma man dama am problème man koy mu ne maay cinquième <laughs> cinquième ci déposé ñu ni ma manqué na la huit mille am nga huit mille et quelques doublons waaw moom am na huit mille et quelques doublons moo doon cinquième ñi ci dess ñi ko jitu kenn ñu ci bari waxuñu leen doublon ñi top ci ñoom. Uh-huh. kenn ala kulli c'est-à-dire que les gens n'ont pas compris. effectivement et le ministère de l'intérieur nak bi mo raw parce que bële sax boog mënoon nañ leen jox. Euh, un peu de crédibilité parce que justice là c'est la c'est le conseil constitutionnel dañ nan duñu politique. bi ci lan la rawé bi ni mu rawé moy ministère de l'intérieur la. ka fa dafa far ña fa ne dañu far dañu bokk ci camp te ñoo ñoo nar def tey bi processus bi ñële ñu yaakaaroon ni dañuy neutre def nañ la leen neex kenn d'accord ci parce que leerul wóorul uh-huh. mais ñii dañu far donc ña ñu amoon sax préjugé favorable la ñu def doyul xel dalul xel ñuy yóbbu ci ñoo xam ni seen c'est dara est-ce que dans le Japon, les li parce que euh, gis nañ que parrainage 2019 lañ ko indi woon ci élection euh, présidentielle euh, bon même si fekkee ne que ci élection locale nous ñu génn acteurs politiques yu bëri d'accord ñu nous pour ñu parrainage Nous avons ko ñu nar ko gisaat ci législative est-ce que dans le Japon, que ce qui s'est passé tey l'élection élection locale il y a eu Wi bon ba tey ñu que gagné même si de l'autre partie nous avons gagné à 80 100 est-ce que da nga yakane que lolo tax ñu indiwaat parrainage bi pour mëna a ay ay ay candidature yu bari. suñu gaañi dañu tiit xam nga dañ né gaañee nañu 80 Hmm. cent. waaw ñoo yor maire yu bëri mais 2019 biñ non ba ko ko teug deun 58 pour cent la ñu waxoon. bii ñu ngi ci 41 41 te mënuñu ko wéddi nañ ñu wax ndax li ñu wax dëgg la am du dëgg donc le président a chuté. -hmm de 58 à 41 sous fait su fekkoon a def élection présidentielle c'est du premier tour Nous, avons bi Nous euh, avons presque plus de 100 collectivités locales Si les collectivités locales yi nga xam ne nañ faak président 37 nous sommes 37 Nous, sommes 32 ou 34 parce que c'est la compilation des suffrages obtenus d'accord voilà donc nous avons bien sûr oui parce que xam nga euh, et c'est en cela que le dialogue politique instauré par le président pose problème mm-hmm. parce que nous ni nit ki mais suñuy waxtaan li arrangé mu un consensus li ma waxtaanul nous, ma un consensus. am consensus te yow président bi ñu yaakaaroon ne yaay arbitre toujours tu arbitres en faveur de ton camp. Ah mais les acteurs politiques euh, euh, ils sont en partie responsables parce que nous, sommes d'accord ne que euh, point d'accord, ñu au ñoo président de la république pour nous décider. parce que le président est ni woon il mu recevoir bi démarrer dialogue dafa ni woon moom léegi comme que gagné na deuxième mandat am weesu na njuuj njaaj du yéen ñëpp nga koy dégg nee na dootul njuuj njaaj est-ce que dama ko sos waaw nit ki nag sama sama ki ma yar muy président Daouda Sow dafa ni ma nit ki du ni mu waxee ni mu jëfe dong la dañu yaakaaroon ni on n'est pas dupe

ñii ku ñu xam foo jëm doo egg ñii kay bàyyil ñu leen di bett rek. Uh-huh. waaw gars yi duñ leen a fan lañ jëm ak dañ leen di bett rek ñu topp suñu ginnaaw di yuuxoo ko. mais daal naroo leen nangu parrainage. en fait ça dépend de nan nga tuddee duñ ko nangu. Uh-huh. parce que nous sommes des responsables. dañ koy xeex parce que yaakaar nañ ni niñ ko nar a defee pas dañu contre parrainage parrainage kenn mënu ko contre. Uh-huh parce que c'est voilà un principe qui dans de manière démocratique peut toujours aider à rationaliser voilà merci à rationaliser donc qu'est-ce que ko mhm. en tout cas kenn ce ko bañ ñoom Nous, nous proposé ak ni ñu koy avons la nit ñi d'accord du leneen ah kenn mënu ko parce que parrainage il na que... gis France Guy, mhm. nous ngi doon parrainage u élu mais dès que ren bi mu mettee ba pourquoi ngi naan pourquoi parrainages aux def parrainage citoyen donc c'est pas le c'est pas le, le principe qui est le problème c'est d'asseoir un système crédible fiable qui rassure tout le monde D'où l'ennemi mais kenn mënu ko wàññi ni ngi mel ni damay dem élection duma fait fay caution xam nga amul ba sens mm. donc parrainage mais sur le principe il ne pose aucun problème d'accord Nous avons li ñu sortir sax ci temps donc te des na ay euh, surtout que danga ma <laughs> bon mais nous